to salaamaaleykum mbokk yéen ñu ngi suivre ci seen site internet luttetv.com tey samedi 24 novembre 2018 ñu ñëw ak yéen ci yéen kaay comme niñ ko ci luttetv.com waxee samedi le 24 novembre 2018 Lamine ñu ñëw ak yéen ci yéen kaay Lamine. yéen kaay nag ñu ci doon àndal la continuer di ci àndal ba léegi muy waa MSD Prestige ndax nee nañ feccu liir bu neexee yaay jaay tee ci mbaggee. waaw bu la leexee tamit nga ne ndey ji rek ndey jaa jàpp sa mbaggee ñu koy waxee waa MSD Prestige ñoo ñëw fekk ay ndaw yi dem ñu ñëw fa yéene la gunge ci ànd yoon bi démb oto yi ñuy jaay ma tànnoon ci benn oto ni leen capot yi ñoo koy jënd yaakaar naa ne gaa yi woote nañ waaw capot yi woote nañ si ndax jaar nañ ci wooteekaay bi woote jot wax ak seeni borom ñu yombala leen prix ba am nañ yaakaar ne am na sax ñu jot a jënd suma juumul kon msdprestige point com boo gisee ñu mën a am sañ-sañ boobu li ñuy jaay dafa baax tegu rafet waa groupe Lutte TV nag fans club Lutte TV it yaakaar naa ne war nañoo mën a génnee jëndal ma ci oto yooyu noonu nag ma dem Ndiassane ga ci Gamouane. waaw loolu moom waa fans club Lutte yi tuuti yaay Sarr moo ko jiite moom ak ñu mu àndal dinañ xalaat si loolu ñëw seet si waa MSD Prestige ñu jox la oto Lamine da ngaa war a am oto Lamine. ku soxla seen numéro mën ngaa def 77 227 07 84 beneen numéro bi 77 393 33 10 MSD Prestige ak MSD Impact. waaw msd impact point com de mooy seexandooru msd prestige bu kii di jaay ay oto di ko jaayee ñi ñi prix bu yomb moom ñëw na sawet wet ga indi fa ay pièces détachées di ko jaayee tamit ci lu yomb ay pièces détachées yu dëgër yu tegu ci yoon Lamine di ko jaay ci lu yomb ñu ñëw yéen nag ci journal bi journal bi sunu làmb Modou Lo la xëy fësal wan ñu kombaam mu nga taq ripp ak suuf Balla gay ñu wan ñu mu nga taq ripp ak suuf Modou Lo bi mook Baye Mandione la su ma juumul waaw journal image la ñu wan ci Balla Gaye ak Modou Lo kii ba muy jàkkaarloog Baye Mandione la kii bi muy jàkkaarloog Tapha la. leer na naa ñi Gaston nag mooy wax nee na combat bi mën naa bañ a nekk le premier janvier. waaw loolu de waxu sunu papa Gaston la moo fa jaar moo ko tëgg bu la nag war na mën naa bañ a nekk la premier janvier kon ñu koy déglu nañ ci bàyyi xel ndax moom moom ak ca gëgguyam Lamine. Mhm. moo ko tëgg moo ci def xaalisam. bu ne mën naa am na ko ñu ñu séntu bu ne mën naa bañ a am na ñu ñu séntu loolu Lamine. le premier janvier nag mu jege na lool lool lool leneen loo xamante ni Gaston Mbengue wax na ko Tafa mi ñu doon wax ne dafa dem kër Alioune Sarr ba fan yëpp yaa ngi dégg ñu naan dafa war mbëri dafa war mbëri Gaston Mbengue nee na Tafa warul kenn. waaw loolu suñu papa Gaston moo ko wax nee daal ñi fi nekk. jël seen seen lépp bëgg ko taf Tafa naan Tafa Gueye dem ci kër Alioune Sarr ak moo fa dugg guddeeg moo fa dugg bëccëg Gaston Mbengue nee na loolu dara amu ci Tafa Gueye warul kenn Gaston Mbengue nee na Tafa Gueye moom rakkam la yàgg nañoo nekk di ay ati at at moom ak Tafa Gueye Alioune Sarr ni mu nekkee moom ni mu nekkee magu Tafa Gueye noonu la Alioune tamit nekkee magu Tafa Gueye te am na droit dem këram ñu waxtaan. waaw loolu daal sunu papa Gaston ko wax euh, Lamine nee Tafa Gueye moom rakkam la yàgg nañoo ànd te yàgg na koo tëggal combat umpul kenn umpul umpul ma umpul ñu ñuy seetaan tamit xam nañ ne diggante Tafa Gueye Gaston lu yàgg la noonu la ko waxee tamit si diggante Tafa Gueye ak Alioune Sarr loo xamante Gaston wane na ko wala def na ko mooy rafetlu liggéeyu Alioune bi nga xamante moom lay liggéeyee làmb ji démb loolu la waxoon tey loolu la waxaat te yaakaar naa ne Gaston it suba loolu lay waxaat bokkul sa ñooñu moom bu ñuy jaaree gos jaaral sa duraat ba jàppale Alioune Sarr nee daal Alioune Sarr liggéeyam rafet na démb rafet na tey rafet na suba rafet na gannaaw suba hmm. waaw loolu nag ku ci bëgg xam lu leer demal si journal bi di nga a yaatal leneen ne wax na ko moom Gaston Mbengue nee na am na ay jamono Khadim Ndiaye su ko mënoon a rey dana ko rey waaw moom loolu la wax moom moom daal moom da nee na am na ay jamono Khadim Ndiaye mi doon jiñ buuse de l'arène moom sunu papa ji dëggal na ko nee na am na ay jamono yoo xam daal Khadim Ndiaye bu ko mënoon a rey dina ko rey du si waxu Lamine du samay wax waxu sunu papa Gaston la te mu ngi ko jaarale si journal bi ñu naan suñu lamb Lamine. ku ko wedd nag da dem jëndi journal sunu lamb ba léegi dañuy des ci combat Modou Lo ak na promotion loolu de waxu journal bi la journal bi nee na promotion combat Modou Lo ak Balla Gaye dafa des loolu nag Lamine comme ni ma la ko waxee rek waxoo ko waxuma ko journal bee ko wax. mais Balla Gaye Modou Lo Jamaïcain jarul fay lu bari Balla Gaye Modou Lo doy doy na promo. la Lamine ñun sax li ñu gis ci jàppuñ ne promotion bi des na ndax ñoom ñaar la ñu def sa Bercy def ko fii ci réew mi ñaari signature yu ñu fi jot am ak woy ba ñu woy woy baa ngi toj àdduna kon ñoom ñaari kenn ku si nekk yaa ngi nekk ci la nga war a nekk li ñu def rek dafa doy promotion Balla gay dem na INSEPS def lu mbër musul def Modou Lo jógee koo fii dem def lu mbër musul def loolu rek dafa doy promotion wu làmb Lamine. te génn nañ benn son te son boobu yaakaar naa ne bu ñibbisee danañ ko danañ danañ def clip bi instant bi dañoo toll ci wut doole nag instant bi nañ leen bàyyi ñu wut doole rek ñu ñu nekkal leen fii ak waa suñu làmb. waaw loolu la de suñu làmb daal moom mu ngi wax si ñoom tey mu ngi wax si ñoom suba ñoom nag dañoo wuti doole bàllaa nga France moo doo nga sa wet ga nekk Espagne mm. soriwuñ Sénégal nag lu ñu wax si ñoom ñu ngi koy dégg kon ñoom ñaar instant yi ñu ngi si phase su naxante ku nekk di bëgg a jaay sa morom doole guddi yi Lamine. ginnaaw Modou Lo ak Balla Gaye journal bi nee na moom rek mooy combat boo xam ne taxaw na ci combat yu mag yi mu mel ne chômage nag am na ci làmb ji. waaw loolu de la journal bi wax nee na daal guddi fi may wax ak yéen Modou Balla Gaye rek moo fi taxaw ci combat bu mag. waaw am na combat yoo xam nag gaa yaa ngi ci di ko fóot fóotum biir nekk waaye journal bi moom li jot a taxaw loolu la ñëw fësal ne Modou Lo ak Balla Gaye ñoo fi combat VIP. yi kon instant bi dañuy xëy di kon boo fëggoon tey benn VIP mu wax la ñaata poto lamp am ci réew mi. ah Lamine de yaa leen fëgg sañu maa fëgg man benn VIP di ko laaj ñaata poto lamp nga compté xam naa ne daal VIP yi ñu ngi seen ruq di entraîné promoteur yaa ngi leen di nañ ñaan rek làmb ji yooyu taxaw ñu yegg seeg jàmm Lamine. Gris moom dafa mel ni waa Pikine moom la ñu teg bët ñoom moom moom bëgg bëreel ginnaaw ba ñu wax combat am ak Ama Baldé Boy Niang dafa mel ni ñëw na dugg ci làng ga. waaw journal bi de loolu la nee na Gris Bordeaux nga xam ne mooy Tigre de Fass waa Pikine seen bët teguñ ko fenn ful ci Gris gannaaw bi ñu nekkee di wax ci combat am ak Ama Baldé ñun déet na waaye Boy Niang moom nee na bu euh, kumbaay bañ sàmbaay rasu la de guerre de su ma jëlul sama bët teg naa ko ci Gris Bordeaux leneen loo xamante ne journal bi ñëw samp na ci ab laaj muy Tyson ak Yékini rek nee na ndax dañoo bëgg a nekkal mbëri mbëri collectif bi ndax ñoom ñoo leen fay représenté. waaw loolu de journal bee koy laajte ba tey nee leen Mohamed Ndao Tyson ak Yékini gannaaw bi leen ministre bi classé dugal leen ci biir CNG bi est-ce que du ñoom ñoo pare pour teewal fa mbëri loolu nag waxu journal bi la mbëri waxaguñ si ñoom dégguñ ñu wax si Lamine Jamaïcain xam nga nees. waaw nees de xam naa ko moom lañ ci woowee la baleine der Lansar. la baleine nees la baleine la ñuy wax jëm. ah Lamine nag man kenn mësul maa fayal pour ma jàng école Lamine si daara ji laa jugee olof laay wax. man it ca daara ji laa jugee de maa ngi woon ginnaaw raay. yow léeg-léeg bés da lay kot ci ruq di la jox ay cours te man jëluma cours ku ma jox cours nag laay wër Lamine. borom su ma jëndee ginaar may la pooj bi nag dafa demoon états na. waaw boog teg ci yaay sama xarit bu ma jëndee ganaar may la pooj bi yaay la ko doon bàkkoo gannaaw bu mu demee États-Unis ay na ñibbisiwaat ci réew mi nees ñibbisi na waaye war naa andi lu leer nag ndax digganteem ak Sa Thiès nees kenn xamul lu mu andi. ah bu indiwul lu leer daal tooñ na waa États-Unis ndax États-Unis mbër yi fay ay forme la ñu indi te nees ni mu fa yàggee dem mer yaakaar naa ne bu ñëwee ci réew mi war naa indi forme boo xam ne ko gis ne accam. rëg moom dem na dafa ni mer la yóbbaale moo tax journal bi ni rëg-rëg client la pour Gris 2. waaw moom de bi nees di jógee caar états si caarooy moom moom takkee na wëli sam caarooy dajeeg nees mm-hmm. waaw ne ko daal comme yaa ngi ñëpp si dinaa la représenter Amérique ñëwal caaroy xaar ma fi ma dem Amérique xaar la fa. waaw loolu journal bi moo ko wax leneen loo xamante ne journal bi wax na ko waaye dafa xëy samp laaj ci Moussa Ndoye nee na promoteur yi lan lañ xaar ci moom. waaw journal bi de waxat waxoon moom booba léegi problème mu adversaire la wala ci moom la Lamine. ah yaakaar naa ne ci promoteur yi la adversaire yi bari nañ keneen koo xamante ne ma nga moom tamit mooy trompeur tegale quatre défaites dem na nag pour entraîner ji nag nee na nag day entraîner comme dof pour relancer carrière waaw trompeur de loolu la ñu wax nee daal états gis na ne ba fay mbëri dem ñëw di am njëriñ di ko wane ay seen i preuve moom bi mu teglee ay quatre défaites am jaaxle bi mu takkee wala sam jubluwul ci benn réew moom daal dëkk Donald Trump bële fa la jëm nee na nag dina fa entraîner ba mel ni ab dof ba bu ñëwee ci réew mi nii mën a tegaat carrière am ci yoon. nee na juróom benn weer la fas yéene nekk ci saali. waaw loolu da la wax nee na 6 mois 6 mois comme Lamine bee yoon yaa ma corrigé woon dama lay corrigé juróom benn weer mooy 6 mois comme yow <laughs> ab loora loora nga dama lay iri Lamine 6 mois la wax ne loolu la mhm. ah, ci anglais waaw 6 months waaw ah, di dégg nga anglais moom boo déggul mhm. français bi aayuma ci waaye anglais bi Lamine bu ñu si demee dama lay daaneel incha allah yaakaar naa ko de mais ma daaneel la ci olof bi rek garaawul di nuyu gars yi ñu suivre yëpp ci Lutte TV la comme foo mën a nekk ci àdduna bi. waaw mënu ñàkk Lamine du mën a ñàkk. ñi siifur si àdduna bi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax ndax ñoom ñooy dooleel Lutte TV di leen di safoo di leen ndamoo fépp fu waay mën a nekk ci àdduna ñu ngi lay dugg nag Gàmbi fekk fa waaw Vice FM nga xam ne nii ñooy reprendre revue de presse foofu di ko teg foofu sa Gàmbi ñu ngi leen di ziar di bu baax a baax di nuyu waa garage Moussa Fall yëpp ñoom Samba ak ñoom Baj ñoom xaadim chaque jour ñu ngi koy déglu Lamine. Arona Camara gëj naa koo gis gëj naa ko dégg ma ngi koy nuyu lu bare bare bare du nuyu waa xew-xew làmb ji Cheikh Bass Pape Demba waaye du ma fàtte Laay Def Laay bu Def Laay Wàdd borom Sandaga. borom Sandaga yokk ci moom man ñëpp moom man ci réew mi Laay bu Def doomu ndey Sam production fi muy génn ak yow dafa jaar yoon ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko nuyu Lamine. waaw di nuyu ki nga xamante ne mooy Seydou Traoré ak comme ni sànq rek Omzo mu ngi ci luttetv.com. fans club bi ak tuuti yaay Sarr mi nga xam ne mooy moo nekk ca bopp ba. waaw fans club moom dañuy jël nuyoo bi rek teg ko ci loxo. tuuti ah. yaay Sarr mi nga xam ne mooy borom Espagne. moo ko moom moo fa nekk tey nekk fa suba ñu ngi koy ñaanal lépp lu mu bëgg ci àddunaam yàlla na ko yàlla defal moo waa fans club bi yëpp Lamine. petit promoteur bu ndaw noble bi. petit mënul la cadet de promoteur c'est <laughs> yëpp petit màggat promoteur yëpp petit mooy seen noble. nan la nekkee noble promoteur <laughs> <laughs> maa ko fa xajal foofu moom petit bu ñëwee sama ginnaaw lay topp. maa ngi koy ziar di ko nuyu di nuyu sunu papa promoteur yëpp ku ci mel ni papa Abdou Fall ak képp ku mu jiite ñu ngi leen di ziar ñoom ñëpp di leen nuyu di nuyu sunu papa Gaston ak Père Lick ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar Lamine di dem ba Espagne di nuyu Ndiga Dia doomu Ndeye Diouf waaye mun Niass duñ ko fàtte ak Serigne Mbacke borom Touba. Lamine Mounir Niass Niass Gumba Abdoulaye ñu ngi koy ziar di ko nuyu di ko ndokkeel di ko jox wàccuwaayam di ko ziar ci gàmmuwaat gi ñu jëm di ziar Baye Ciss mi nga xam ne mooy borom Kaolack maa ko wax Lamine Serigne Mbacke Mbacke sang bi ñu ngi lay ñaanal jàmm di sàkku si yow ñaan nga ñaanal ñu jëm sa kanam Lamine. kooku sunu papa la sunu conseil la Lamine ndax chaque jour mu ngi naan ñu defee leen nii waxee leen ni ko su jobang borom France ñu ngi lay ziar di nuyu Nicolas Faye maam Balla xaritu yaayam di dem ba États-Unis Aliou li doomu nday booy bool Abdou Dramé si ak Matar Boussa Lamine. di